fa day mandu te aussi moment bi nga xamante ne ni ñu ngi bàyyi comme ni nga ko waxee Antoine Félix Diome ci ministère bu intérieur euh, chamboulement nag am na ci magistrature bi ñu gis ay changement ak ay soppeeku yu euh, yu bëree bëri foofu la est-ce que du jur njeexital sénégalais yi seen xalaat yi ñuy xalaat ba léegi nii. nga xam ne li loolu lépp li muy indi mooy. yàpp gi Macky Sall yàpp sénégalais yi. Hmm. boo déggee chamboulement bi ci loolu lay dem. Hmm. Macky Sall bi mu njëkk di door politique. dekkal ngor coalition dekkal ngor la demee woon en 2009. Hmm. bi mu ñëwee di dem 2012 ak yooyu yoonu yokkute. di ci programme mu Macky Sall ngir mu doon jiitu réew bu Sénégal di nga Macky Sall li mu defoon ci programme bi yëpp ba muy falu bi mu faloo da kaa dindi maanaam moom bi mu faroo rek la war Sénégalais yi. Hmm. maanaam la mu leen waxoon moom avant muy falu bi mu faloo rek la ci jóge nekk ci leneen. di nga li ñuy wax ci magistrature bi nii. Hmm. ci Abdoulaye Wade dañ daan xeex lu bari di bañ naan euh, magistrature yi. magistrature bi Sénégal dafa doon loo xam ne danoo sukk jébbalu ci kanamu nguur alors que ñetti pouvoir moo fi am mooy ñi fare assemblée ñi fare ci yoon ak ñi fare ci donkaasi gi di exécutif mm-hmm. Macky Sall ci euh, campagne am xam nga loolu la doon wax mm-hmm. da doon wax naan bis bu ma faloo dinaa fexe ba magistrature bi am indépendance am mooy conseil supérieur de la magistrature mm-hmm. mooy loolu pour mu am indépendance ñu demee seen cëgalu géey maanaam président du doonati koo xam ne maanaam moo koy jiite am fa yenn doole yi moom président de la république mm-hmm. beneen bu topp mooy ministre de la justice. Mm-hmm. du doonati vice président bi maanaam magistrature bi ay nit du dul magistrat ñoom ñoo leen jiite maanaam ministre de la justice mënul ko fal ku ne ci réew mi président de la république ñoo jiite alors que dafa noonu ñaar yooyu yëpp moom bu amee day def rupture baatu rupture loolu tax mu doon dellu si. Mm-hmm. maanaam comme ni Ousmane Sonko doon wax moom noonu la doon waxee rupture la woon woon ni la la amoon amati. léegi bu ñu demee ba en deux mille vingt le président de la république jiite conseil supérieur de la magistrature. Mmh. ministre de la justice doon adjoint maanaam don adjoint topp ci ginnaawam doon vice président bi kon tey jii Macky Sall la mu diggoon Sénégalais ci wàllu justice ba mu falo la ko jalgati. Mmh. léegi nag soppite yooyu am mooy tombé dafa waral ay gaaf. Mmh. xam ne justice ak presse daa am fu ñu nduroo man damay faral di wax naan justice euh, indépendante amul Serigne Lamine sax da nga daan wax juge indépendant moo am. presse bi tamit. une presse indépendante man gëwuma ko mais ci biir presse bi mooy am ay nit indépendant rek am éthique am déontologie gëm seen liggéey bañ di jaamu soxlaay kenn mais jàpp ni seen liggéey nañ ko war a defe leen mais ci justice bi tamit noonu la amee mais man xamul ma jaaxal ci justice Sénégal hmm. mooy les mêmes rek ñooy ñëw li magistrat ci Sénégal mais les mêmes noo yi nga daan dégg ci Abdoulaye Wade hmm. bu Macky Sall ñëwee falu ñoom lay tegaat léegi est-ce que nekkul ni da am ñu nekk ci justice bi lo di def ay salbuloo am ñoo xam ne tey jii dañ fa nekk lu nguur bëgg rek ñu defal ko ko moo tax nguur gu ñëw kenn du xool seen éthique kenn du xool seen moral kenn du xool seen déontologie kenn du xool seen dara léegi ñu mooy ñoo xam ne tey bu salbuloo yi jotee rek ñu fal leen na leen def leen ko mm. ñeneen ñoo xam ne tey jii ñi ngi bañ bañ lu mel ni man ñu ne leen nañ dem Kédougou wala Tamba wala ñu wàññi seen doole exemple su leen euh, Téliko am na Souleymane Téliko mm-hmm. doon juge boo xam ne ci maandu dem bay bind sax ay téere ci wàllu sharia na lañuy attee maanaam bis penc ci képp ku maanaam doon daal ab imam ci biir am na benn imam bu ñuy wax euh, ndaari imam boobu tamit la même sos mais ñooñu lu tax ñooñu duñ am promotion lu tax nguuru Macky Sall gi à chaque fois bii def promotion la ay médiocre la koy def hmm. wala mu koy defal ay ñoo xam ne dañoo retraité ñoo xam ne amatuñ ambition pour Sénégal mais amatuñ ambition sax pour seen bopp hmm. ñoom seen bakkan lañ jiital ci lu ne hmm. loolu mu baax ma mag buur la am ñu ne mag bu baax moo tax ñuy wax. Mhm. mais am na mag yoo xam ne jarul tax ñuy wax mais tey jii boo xoolee ñi ñuy fal ak moment bi leen fal ci coowal Ousmane Sonko. waaw bi leen fal ne Ousmane sonk ak Adji Sarr moment bi leen fal ne Ousmane Sonko ak Mame Mbaye moment bi leen fal. Mhm. ne dans dañuy dem ci élection présidentielle fii ak ay weer. Mhm. moment bi leen fal ci ni candidature bu président Macky Sall candidature la bu lew la wala bu lewul yaa ngi gis moment bi leen fal moo tiital ñu bari. ak doole ji nguur di am parce que tamit nit ki li naan boo doonee sikkim da lay geesuwaale te bari na ci ñoo xam ne tey ji da leen a fal pour man ay sikkim lan da leen geesuwaale te ki leen tabb doole ji mu am mooy mu am pouvoir de vie ou de mort pour man moo indi lool maanaam tey ji kenn mu kenn ku mu fal ci ñoom defaloo ko lu mu bëgg sañ na la dàq dem lay jox euh, kii nu mu tudd euh, Aline Badara Ndaw le procureur ci mbiri Karim Wade mm-hmm. est-ce que xam ne waa ji fi mu toog di àtte lañ ko yéene SMS dàq ko parce que boobu moom bi Macky Sall tànnee Karim Wade. Mhm. ñu bëgg ko defloo yenn yi. ci affaire mbiru Karim Wade. ñu jàpp ne procureur bi. Mhm. day bañ. Mhm. mais fa mu toog di àtte la ñu sañee jël décision dàq ko maanaam mi ngi mel ma toogoon di def émission jékki-jékki fii rek xoolal yónnee message na ma fi arrête léegi c'est fini. imaginez tey ji justice bi mën a toll foofu. tey jii loolu mooy indi nag képp koo xam ne tey jii yaa ngi war di àtte. atteetoo sa aqulaay taala atteetoo ni diw def na wala diw deful dama lay jox affaire Kaliphone Kaliphone la la doon wax dañ ko jiñ viole mais dañ ko jiñ ni dafa duma nit jigéen ñu jël viol bi teg fële euh, kii di euh, Massata Samb mhm. ak euh, keneen ki sant ñan ñoom tamit liñ jiñ Kaliphone la leen jiñ xam ne Kaliphone din na ko vol bi mais dafa duma jigéen ñee ñu jiñ leen ñoom tamit danoo duma jigéen mhm. ñee ñu tëj leen juróom benn weer Kaliphone yu teg ko weer ci ñaar ñoo xam ne li leen di jiiñ benn jiiñ bi la li leen di jiiñ lenn la li leen di toppee mais bosu Kaliphone sa boo dee seen moo gën a graaw moo gën a graaw bàyyil na ay euh, ay trace trace li nga xamante ni moo di euh, kii parce que ñii da leen a bëgg xañ mm-hmm. seen ndombal tànk député mm-hmm. kii mën am arrangé na leen